waaw d'accord ah, euh, eh, taalal lii nag d'accord Jimbori euh, buñ taalal lii bala maa ñor euh, dañuy dem ci li nga. nga ne lan yow moom mooy moom mooy Jimbori bu jógee foofu dañuy dem ci li nga xamante moom mooy liste yi génn liste yi ngi war a xamante ne ñoo war a nekk candidat donc également gis nañ ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye gis nañ directeur Abdourahmane Diouf ne. Bassirou Diomaye Faye mi ngi en danger donc tamit sénégalais yi di xalaat loolu ndax lu mu ànd ak Ousmane kooku ñu demee noonu. ban jàngat nga am ci loolu. waaw kii nee na bu yokkee clim bi. courant day sotti. d' accord beneen nga accord parce d' accord te lii de guerre la. d' accord américain. Mhm. du dëgg. Mhm. ndax nga gisee Bassirou Diomaye Faye ñi naan. candidature dafa nekk en danger parce que euh, ñu ngi njort que ni comme ni Ousmane Sonko nañ ko pare parrainer ba pare nangem ñu validé ko ci demee noonu. Mhm. ban jàngat nga am ci loolu. waa xam nga tey Bassirou Diomaye Faye. buñ ne candidat am dafa nekk en danger mais ñi ko wax seen xalaat rek lañ wax du dëgg xam nga Bassirou Diomaye kañ la nekk candidat xam nga ko kañ la nekk candidat bi Ousmane Sonko mi nga xam ni mooy kandidaal kullu candidat nen nañ ko kandidaal booba la waaj a nekk candidat Bassirou Diomaye ay kayit ak yi tënkatu ko de ah ginnaaw Ousmane sonk nee na nañ kii nañ parrainé Bassirou Diomaye Faye waaw ba mu ko waxee ba tey Bassirou Diomaye si la réew mi yëpp ànd ak moom léegi comme gars yi fexe nañ ba Bassirou Diomaye jàll na parrainage mhm. léegi lan moo des pour ñu xool ba xam yow xam am mosoo am problème ak yooyu nangam nangam mhm. mais ñu bari tamit ñu ngi xalaat que ni comme li mu ànd ak Ousmane Sonko. waaw xam nga tey. nañ ko kale waaw xam nga Basir Diomaye. en danger waaw Basir Diomaye. Mhm. Euh, problème bi bi bi ñu gën a xam te nit ñi jàpp ci ne loolu moom moo ko mën na ko gàllankoor. Mhm. du noonu. Mhm. problème boobu ñun ñëpp teewe nañ ko ndax loolu problème la ma balaa ñoo wax ni xam nga nit ñëpp bu ñu àndandoo ni Bassirou Diomaye problème nangam mën na koo téye mm-hmm. le fait que yéen ñëpp ngeen wax ngeen wax problème nangam mm-hmm. rek yéen ja yéen a ko jàpp d'accord mais ñun ñëpp dañoo war a def si suñu xel ni mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye ndax problème bi mu amoon ndax loolu problème la ñun ñëpp jàpp ni lii kat du problème buñ ko defee Bassirou jàll mais bu fekk communication bi ñëpp <clears throat> benn wax bi la ñuy wax lii mun na ko téye lii mun na ko téye ñu bokkale ko ñun ñëpp mais buñ ko téyee bettuñu. lan moo tax 21 yi jàll mais moom rek lañ ciy xalaat pour ñu bañ a valider li nga xamante ne. non xam lu nit ñi xalaat la parce que nit ñi moom. Hmm. dañoo jàpp ni Sonko. Hmm. lépp lu laale ci Sonko duñ ko bàyyi mu jàll. Hmm. mais ma wax la benn affaire boo xamul. xam nga Sonko. <coughs> dafa yore bal bal xam nga bal. Ah. mu daw rek gaa yi topp ko mu centré bal bi. mooy lu mu doon def këram jongale. non dafa am comme centre centré bal bi nii. mais gars yi comme centre centré bal bi la ñuy wër gisaguñ ko Sonko laa wax de. Hmm. bu fekkee tere nga koo dem. Hmm. day centré bal bi tey nag il faut ma euh, euh, euh, naka la hmm. soxna Ayda yaa ngi dégg def kii sëñ Cissé bu Sëriñ Babacar si ak Cheikh As Barxaamu. ma wax la dara. Sonko bu waree nekk président ah, hmm. day bett ñëpp. bu ko waree nekk. bindal li ma la wax Sonko bis buy ñëw biir pale hmm. ah hmm. da leen bett. d'accord nga li ma la wax wala gëmoo ko. naka la ñuy bettee bu fekkee dafa war non parce que Sonko dafa doon ñëw ngeen gis ko mu leer nañ digganteem ak pale bi ba dara desu si. yéen ñëpp yéen sénégalais yëpp ngeen toog gis lu xam ni dangeen ngeen ni lii moo ko gàllankoor digganteem ak pale bi du dëgg gis nga gàllankoor bi nekk noonu digganteem ak pale bi ah? moo dindil Sonko lépp loo xam ne ni mu la ak ak balaa bu ko waroon dal dal réew mi buy ñëw ci pale bi day bett ñëpp gis nga même bu dee ñetti fan xam nga ñetti fan mm-hmm. Sonko dina fanaan ci pale bi après élection yi. booy waxuma la lii de. après élection non déglu ma. waxuma la ay waxantu nii. wax laa la wax dama bëgg nga jàpp ko waxuma la waxu sama bëgg-bëgg tamit. Mm-hmm. xoola. Mm-hmm. su fekkee mi ngi nooyi. même bu dee ñetti fan dina ko fanaan ci pale bi. moom Ousmane Sonko. <laughs> billaay wallaay dina ci fanaan xam nga lu tax ma wax la ko. Mm. gis nga Waly Seck ñun nii coon lañ daan déglu. mais temps bi muy doog a commencé dama doon wax est-ce que kii dina jël palaasu coon mais la fait que ma gis xale yu ndaw yi di ko wayantoo laa xam ne booy bi dina ñëw d'accord Sonko dama koo gis ci dënnu xale yi te ñun dañoo dañoo am génération boo xam ni génération boobu par force dañuy dem toogi foofu lañ toll am <coughs> am génération boo xam ne par force dañuy ñëw ñooñu di ñëw nag la nekk seen dënn yi te bu ñuy ñëw dañ koy indaale d'accord déggoo ma dama ne la damay moo tax ma ne la. dinaa maaraa tuuti. d'accord li ma la wax nii xoola bind ko. foofu laa ko teg. ñii ñëw génération bii ñëw. te gen xam nga génération soixante dix soixante onze ba soixante quatorze. soixante soixante treize. xam nga mm. xam nga euh, euh, naka ba ba soixante quatorze soixante quinze soixante seize ñii ñoo fi nekk. Mm. ñii ñooy ñëw. bu ñuy ñëw dañuy ànd ak moom dikk. d'accord kon ba tey am nga yaakaar que ni li Sénégalais di xalaat ci candidature Bassirou Diomaye Faye am nga yaakaar. déggoo ma de dama ne même bu nekkul Bassirou Diomaye Faye mhm. man maa ne la Sonko 2024 bii. Mhm. Sonko dina toog foofu. d'accord Abdou mhm. man maa la ko wax de. source la wala. non mais dama laa wax ne la Sonko. <laughs> même buy nekk première ministre. d'accord voilà premier ministre président assemblée national mhm. yaa ngi dégg. Mhm. Mhm. président ah ñett yii ci deux mille vingt quatre bi maa ko njëkk wax nag xam nga. ndey bañ gars yi non ñoom fii dañuy xalaat di wax pirateur lañ. <laughs> yaa ngi dégg maa ngi ñoom a rek ay chroniqueur lañ. comprendre nga ni ma la xoola ñett yii ci deux mille vingt quatre bii su ko doonul dana ma jaaxal. muy ban président assemblée nationale mm-hmm. première ministre président booy mm-hmm. ma wax la dara mm-hmm. Sonko jaaxalu la hmm? jaaxalu la wala jaaxal na la mais tasuñu parti bi mais ban parti moo nekk euh, euh, euh, deuxième de kii naka la tuddati booy seet tey ban parti rek ngay dégg ñuy wax waxam. ma Pastef. ex-Pastef. tasul tasul moo tax man. waa déglu ma nee nañ tas na. te kuy wax kuy laax moom ñoom ngay laax. Mhm. tas na si kayit quoi amee tasul si bopp yi. la jóg jaaxalu la. si. Hmm? Mhm. moo tax ñu ne la booy wut tur di ko tuddee dara da nga koy werd li saxaar ko xool ko am na tur yoo xam ne kenn mënu ko effacer. kon Pastef. munoo ko effacer. mu ngi mel ne nga demoon ci arxuraan tey bëgg faa dindi faatiha gi léegi ma wax la benn affaire ma waxaat la deuxième affaire bu wane ni gaa yi mm. fi ñu taxaw ci zaahir ak ci baatin dafa xaw a dëgër yaa ngi dégg mm. ma ni mm. photo yi ñuy jaay ci mbedd yi ñan nga xamoon ñuy jaay seen photo mm-hmm. ñan nga xamoon ñuy jaay seen photo mbër yeeg seen ak sëriñ Cheikh yooyu. ban président nga mës a gis mu nekk ci senegaal ñuy jaay photoom. Mm-hmm. booy demal ci tali bi demal ci tali bi xoola booy yi di jaay ci tali bi photo Sonko la yor di ko jaay nit ñi di ko jënd. Mm-hmm. photo président boo mës a gis fii dañ koy maye. waaye moo sama yaay yàgg naa jël photo jom Ablaye Wade ak yooyu di ci gerte caaf. paaj. d'accord ban fo ban get ban jaaykatu gerte caaf nga mës a gis mu yor photo Sonko di ci laxas gerte caaf jaay la ci. Mm-hmm. xoola man damaa dem seeti ko fekk laxasuñu gerte caaf jaay la ko mm. bul bul xoola. Mm. loolu gis gisaane boobu bu la ko kenn bu la ko kenn wan xoolal foofu da ngaa a gis bi xoola demal ci gaay yi gàttu gerte caaf yëpp. Mm. doo fa fekk photoom mukk ñu teg ko di ko jaayee caaf. musul am. ñaata politicien nga ma a gis ñu yor seeni photo def ko ci benn kayit jël ko di ko sànni ci mbedd mi ku nekk for. yi sax dañ koy ah, di ko kii vraiment. Ah? dañuy jël ay photo am waaw. di di jaay affaire léegi léegi xoola. Mm. léegi loolu jàll na. Mm. ñu léegi foofu ci zaayiru Sonko laa la doon wax. léegi ñu dem ci baatin bi waaw léegi nañ dem ci baatinu Sonko léegi Sonko <laughs> képp koo mas a gis mu xas ko mujjee xas bi am ci jàmm kan la mm-hmm. képp ku mas a dugg ci gardam markabaam baam fàdd na la am na wala amul lu léegi feega mm-hmm. nag nit du mat yàgg naa laa wax ne la Sonko dafa am lu mu bëgg a xamal sénégalais yi te xamu ko ci boppam moom Sonko loolu moom réeroon na ko xam nga mooy lan sénégalais li Sonko di woote dañ ko desee dégg ak ñoom bugaan ak yooyu ñooñu xoole nit ñi ñu ngi leen di topp mais ñoom li leen jaaxal mooy nit ñi dégguñu déggaguñ leen xam nga mooy lan yaa ngi dégg xoola Sonko dafa ne nañ ñëw pour ñu def intérêt public te sénégalais intérêt personnel la xam kaa jàppale ma bu ma gañee jëndal la kër fal la nàngam mu dem wax ko ay mbokam mbokam jàppale ko mm-hmm. loolu la fi Sonko fekk Sonko nag deful loolu moom ak Bougane dañoo xaw a juum foofu xamal la lañ wax kaay jàppale leen ma suñu paree ñun ñëpp yem d'accord xamal la joor ak euh, euh, ki dembawaar lu leen xaw a boole mm. la dafa xeex gañe fépp ni léegi nommé ay gouverneur ne fu ñu dem moog dembawaar ñooy nekk buur ba keroog ñu fay jóge dembawaar nag nandeewu ko noonu hmm. dafa ne kii dafa fal ñëpp falu ko Sonko xamul ni sénégalais loolu la xam loolu la Sonko xamul woon ci boppam ni sénégalais na tàng jër la soxla soxlawul ëllëg lii nag daf ko desee woon a xam hmm. mais ba pare am na beneen boo xam ne Sonko xamu ko woon message bi duggoon na bu yàgg te Sonko xamul ne message bi dugg na pour mu dem toog mission bi dafa mat bu yàgg mais actuellement nii kan mooy dox mission bi nii kan moo koy dox. dox. nii. waaw Sonko nee ko fi te mission baa ngi dox ñu fi bàyyi ay yambar lañu doxuñu dara. Ah waaye baal ma ñii waa yow xam nga man seeni wax moo tax bugguma ko wax quoi comprendre nga ni mu la wax. Hmm. oui baal ma ñii comprendre nga ni ma la wax. Ah. booy xam nga mooy góor góor. Ah. xam nga góor. Ah. góor du si ngand nii de xam nga loolu. Mm-hmm. xoola góor. boo bëggee gisati góor xoola ko xam ni bopp bi dafa baax xam nga ndimbalu yàlla yow dëggantaan xam nga ndimbalu yàlla nan lay demee xam nga ko. pour ma jàngal la ko fii. mooy xam li la manqué. kooku mooy ndimbalu yàlla ci nit. Mm. nga xam ni man mii lii moo ma manqué. mais xam nga beneen ndimbalu yàlla bu ëpp doole ndimbalu yàlla bi ma lay wax nii. mooy nga ñëw cim réew juddu fa ba pare xam ni réew mii sama maam juddu na fi sama pàpp juddu na fi samay bàjjan juddu nañ fi mais réew mi lii moo ko manqué. lii moo taxoon sama bàjjan diw. oo parce que képp ku judd si réew mi nettali nañ la sa benn bàjjan bu génn àdduna. nettali la sa benn papa bu génn àdduna. nettali sa benn maam bu génn àdduna te sa papa bi ñu la nettali ne génn na àdduna sa papa boobu dafa demoon hôpital ñu war ko faj amul luñ ko fajee yaa ngi dégg ñu koy cotiser far matul am garab gu mu waroon jënd jëndul feebar ba attaqué ko mu dee. ku nekk am na ko. am ngeen ko am ngeen ko amu leen ko. am ngeen ko yéen ñëpp am ngeen ko ku nekk am nga sa benn bàjjan. bu xam ni nee nañ la génn na àdduna te sa bàjjan boobu. bi lan moo ko yóbbu alaaxira mooy. dafa waroon def opération mais xaalis bi carrément matut sa bàjjan opération boobu yóbbu ko yomal xiyaam ku nekk am na ko fi mhm. ku nekk tiim na am na ñu fi xam ne tiim nañ seen doom xam ne sama doom ji bu ma amoon lii ci xaalis sama doom ji du dee sa doom dee sa loxo mhm. xam nga lu ko firndeel barki démb sama doom bu ndaw bi laa yor si laa bu ndaw mhm. muy crise ma yóbbu ko hôpital si Kambaaw docteur bi bu jógee fi mu tëdd yow yaa jóg ah barke rasulilah dafa tëdd di nelaw. bu dul woon crise bi booy bi di kiris ma jox ko yaayam damay xeex ak moom. Oh. dama dem ba si moto bi retourne nar a xeex ak moom gis sama doom bi di kadd kaddi ma dellu mais dama doon faayit ak moom. faayit xeex ak moom xeex bu rëy laa naroon xeex ak moom. parce que man booy. ni mm. ma xam dëgg. Mm. daanaa xeex ak juróomi nit man kese. sam sam sam laa dëkk sam sam. wala booy. sam sam laa juddoo fa laa màggee. Mhm. ñi ma xam sam sam laa dëkk. Mhm. daanaa xeex nit ñu bari daanaa xëy soo ma ngoon. Mhm. liggéey ma woon dara xeex rek. wallaay mënoon naa xeex de. torop te du ma ragal. ragal juddoowul foofu. du dëgg. loolu la ma def. mu ne ma yóbbu ko hôpital camp bi. fekk na xale bi booy. loolu noonu la Sonko ak Bougane. ak Abdourahmane Diouf. ak Mimi Touré ñooñu noonu ne lii na dañ lii lañ bëgg a dindi mais ku bëggul lii lan nga bëgg lan nga bëgg ay nit yoo xam ne bu ñuy ñëw seeni poqataan yi sax day xeeñ muñ la jege amuñu parfum nga xëy jox leen pos ñu yor ay milliards jënd oto deux cent millions di la romb te yow xoola boo añee nii pour nga reer problème la. booy école léegi sa doom benn doom bu nekk bu dee école normale di nga ci fay quarante mille léegi dafa am ñuy dimbali nit ñi sax dem ci eh, eh, eh, dem ci mm, mm, koñ bi ubbi fa benn école ne la fayal sept mille mais sept mille fa nga yóbbu sa doom nan nga bëgg a dundalee xale bi jox ko ndékki jox yaayam ndékki joxe dépasse yor sa bopp solal xale bi solal sa bopp ngénte ko bu feebaree nga demaat hôpital ñu laajaan la xaalis Abdou Khoudia nga boole ci yaa ngi dégg xoola nga boole ci yow bëgg njàng mu rëy njàng mu rëy ñoom ñi ñu jiite yéen yéen a fi mën a seen yéen a mën a am njàng mu rëy yéen la seen doom mën a am njàng mu rëy yéen la seen jabar yayoo or ñun mun man booba léegi or ma jëndal ko sama jabar munuma ko ma koy jëndee. ñoom ñoo yayoo or. Hmm. am na wala amul. te koo si gis mu ràngu jëm ci suuf nee ko fooy liggéeyee rek nguur la yor wala mu wala mu bokk ci ku yor nguur nguur dañ ko doon fal nit pour mu nguural mais fal ñu woon nit pour mu nguuru d'accord loolu laa lay wax de li ma xam nag mhm. ñii projet bii lañ woote bu ñu génnoon ci projet bii tamit dama naan la lii baaxul président ñëwoon na jàmbaar munoo fi woote de mhm. yaa ngi dégg xoola président bi tamit bi mu ñëwee dafa am projet bi mu leen indil lu mu dee dee am na lu mu def li mu def am na lu des li des te soxla nañ ñeneen mais ndax amuñu droit ñu tànn ay combattant yu baax. d'accord mais ngeen dem ci parrainage mooy suivre suivre ak loi suivre bu tànnee doo am président. waaw yéen da ngeen a tànn nii pour dem ci élection yi mais tànn tànnagu leen njiitum réew. dangeen ngeen pare pour dem ci élection yi mais pare wu leen pour njiitu réew war a ñëw wax naa la ko. d'accord wax nga wax d'accord ah mi ngi noonu euh, Djimbory yaakaar ah yéen ndam seet leen li ngeen def. loolu am na dëgg du rombi nopp. d'accord ah dëgg yàlla xoolal boo doful loo gis leer na la bu dee da ngaa con yaa ngi dégg xoola <laughs> lu ngay gis nii xam nga waa da da ngay jaawale buñ bojog buñ boxam mais bu fekkee konwuloo konwuloo yaa ngi nekk nit Abdou Khoudia di gis di xam di ràññee di bëgg lu baax di noyyi xoola li ngay gis nii moo la leer leer na la nañ lii lii la boole ndox courant courant ñaata man bii paase soixante cinq mille nangam courant si ñetti làmp benn télé mais fan laa koy kaase da ngay fay mbaa nga dee ci lëndam te lëndam bàmmeel da ca doy lëndam bàmmeel kese da caa doy di dund ci àdduna nekk ci lëndëm. yaa ngi dégg. te tey ku fayul courant ay say noon nee nañu loolu defet la dañ la koy ree am na wala amut du dëgg mais yow tam Abdou Khoudia mais réew mi waxuñu doxul de du dëgg mais réew mi dañ ko war a defaraat. ba pare ñu fonk xam nga am réew bu fekkee suba dafa war a bokk ci luy dox xale ya fa juddoo dañ leen di respecté du dëgg te am réew bu waree dox da ngay seet ñi nga xam ni ñooy ñëw di jël relève bi lan mooy seen kii ba pare yéen chaque jour ngeen tànn nit ni diw intellectuel la kell Abdou Khoudia kan mooy intellectuel fii hmm? mm-hmm. xoola bugaan euh, naka Mamadou Yatta Saay euh, Pape Ngom Sedima Aziz Ndiaye yaa ngi dégg Aziz Ndiaye des na keneen xaw ma kan. Youssou Ndour Youssou Ndour mm. ñooñu. Bamba Firing Dakar. ñooñu ñooñu mm. ma wax la dara bu ñu génnee woon seen loxo est réew mi du dem kaawoo ñooñu mooy seen intellectuel te ñooñu sax bu ñu waxee mun ne non Youssou Ndour jàngul tegal ma fële Youssou Ndour. bugaan mu ne jàngul mais yow yaa jàng te luñ la jox sàcc ko <laughs> non yow jàngoo. ah d'accord ah, jàngoo yow yaa jàng mais sàcc nga. Uh-huh. yaa ngi de ki xamul dara te jub moo gën ki xam dara tey sàcc 1960 ngeen teg fi ay nit ñuy làkk ay français di xoju mënuñu defar kirdan ngeen topp ci di daw mais jàppale leen nit ñi jàppale yàlla jàppale yonent bi élection su jotee ngeen bañ a jaay seen carte yi ngeen régler nekk nit. d'accord.